jërëjëfati Serigne sëriñ jërëjëfati Serigne Saliou. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou mi ñu doyloo tey ak ëllëk yàlla na fi yàgg te gën a wér. Serigne Béthio jërëjëfati. Serigne Béthio jërëjëfati. asalaamualeykum wa wa barakaatuhu. yéen mbokk jullit yi. yéen mbokki adduna. yen ni ñuy yen yen ni ñuy bayyi wuñu kenn laata lolu dañuy ñaanal suñu khalif général señ muntaha Mbàkke khalif général des mourid suñu khalif général yalla na fi yàgg te gëna wër ak mbooleem njabootuk serigne Touba ñoo ngi nuyu wa kër serigne bàyyiwuñu kenn jigéen ak góor ñoo ngi nuyu mbooleem njabootu Serigne Touba gi ñoo ngi ñaanal suñu sang bi moom Serigne Béthio yàgg fi loolu te wér. amiin maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn mbokku taalibe yi waaye maa ngi nuyu njabootu Serigne bi fi teew moom sëñ Béthio jaamu Serigne Saliou njabootam gi fi teew di ko tàmbalee ci sëriñ Sall Gueule Tapée Thioune ak sëñ Xaadim Thioune ñu koy gën a ko xamee ki sëñ Xaadim député waaye doontul sax député universel sëñ Xaadim Thioune waaw honorable ak mbooleem njaboot gi bàyyiwuñu kenn dañoo bañoo bañ a guddal kàddu gi waaye bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu suñu wayjur yi muy soxna Mboose ak soxna Aïcha di nuyu bu baax soxna Batoor ma ñu nekkal ci sëriñ bi di ñaanal ay tawfiixam yokku di santat bu baax di nuyu señ dam Ndiéguène mi fi tok fekke jotaay bi ak kaddom yu rafet yi mu fi yëkëti ñoo ngi santat bu baax di bëgg lool nak ci bëss bi nga xamni mom lañu lañ muy bisuk serigne Saliou gi ak bu serigne Béthio fa taset di suñu bis ñun ko ni ndax serigne Béthio moy suñu serigne mom lañu gëm mom lañu wolu mom lañu yakar. mom lañu yaakar aduna ak allahi la gëñu jëm bisam bi nga xamni moy dajem bi mu dajé ak serigne Saliou fa taset 17 avril 1946 fatasat ba tay Ji, mu koy mu koy weyele di sante Serigne Saliou ba fi ci dëkkam bi di Madinatu salam 17 avril 2019 ni santat bu baax Serigne Béthio ci tewé gi ñuko tewé teewee and ko ak mom tay ñaan limu nagami ni ñu tollu ren te gatchal limbu fi mës jaar ci 17 avril ñoo ngi ñaan limu nag yi ni mu toll sëñ Béthio yàlla na ko dund ci kaw suuf am koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndax yàggam day suñu njariñ yàggam day suñu ndimbal yàggam day suñu noflaay yàggam day suñu sutura yàggam day suñu teraanga yàggam day suñu weer day suñu gudd fan waaye day suñu lu ñu xamtikoon yàlla na fi yàgg te gën a wér ñu ciy lu nag di woowaa àdduna bàyyiwuñu kenn suñu mbokku murit yi tiijaan yi xaadir yi laayeen yi salsaliyu yi chrétien yi juif yi bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo mindeef ak kudul mindeef ndax kat Serigne Touba ba muy wootee wootewul rek yam ci mindeef daa woo jéeri ji woo géej gi Serigne Touba géej gi la woote ak jéeri ji kon bàyyiwul kenn kon cant gii nga xam ne sëñ Béthio mu koy sant sëriñ Saliou mi di dëgg-dëgg sëriñ Touba te def ko muy jëmmam ji di dëgg daggi jëmmam ji tey mu ànd moom mu dimbali ñu ba yóbbaalu ñu géew ndax cant gi kat ku dul sëriñ Touba xamoo dayoo ga ndax moom mooy cantaakoon bi cantam gii nag nga xam ne daggi dëggam gii di sëriñ Saliou te mu def sëñ Béthio muy dëgg-dëgg jëmmam cant gii nga xamante ni moom la woote moom la moom la waxoon yonent ya nañu sant te digaloon ko yonent yàlla Daawda ak Daawda ak njabootam nga sëriñ Saliou ne ko cant gi day ku koy def dangay togg sa ñam yu neex te doy tàmbale ko ci ginaar ba ci gëléem togg sa ñam yu neex te doy jël di ko joxe te doo ci am xejj ak seen di ko joxe doo ci am xejj ak seen moo tax cantam gii ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn jublu ca di bégal ñi ngi koy jox boo koy joxe doo am xej ak seen da nga koy joxee di bég jublu ca di bégal ñi koy jox waaye di sant yàlla ci lim la defal sëriñ Béthio di sant sëriñ Saliou ci lim ko defal mooy jëmmi sëriñ Touba da jombi na lay sëriñ Touba jomb na ab jaam sëriñ Béthio sëriñ Saliou defal ko ko mu fekk ko ca got jamono jooju yàgg na te daaraam ja ca got togg ay berndem jékki-jékki yëg li mu yëg ci moom digganteem ak Serigne Saliou mu togg ay berndem fekk Serigne Saliou got ànd koog ay mbokkam ànd koog ak njabootam ay dëkkandoom ay wëllëreem dem fekk sëriñ Saliou got sëñ Béthio mës sa dugg ak tànk ak tànk dàll maanaam sol daal dugg biir kër Serigne wala kaala wala mbaxane sëñ Béthio nee na ma yegsi tàngoor wa jàpp gone yi ak jigéen ñi ñuy wëllëx ñuy wëllëx ndiku ndax suuf sa dafa tàng sëriñ Saliou defar kanam gi ne ko ana loo ci jublu mu ne ko Mbàkke sant si la mu ko ah mu ne ko sant si la ba muy ñetti yoon sëriñ Saliou ne ko tey jii de yàlla bég na yonent bi bég na sëriñ Touba bég na sëñ Béthio ne li ma def yàlla bég ci yonent bi sëriñ Touba bég ci te sëriñ Saliou woo ma ko wax dootuma ko bàyyeeti kon cantam gii nga xam ne moo dajeeg Serigne Saliou mu def ko nii mu ko def ci jamono. Hmm. l'unique cheikh l'unique cheikh contemporain contemporain mooy jëmm ji nga xamante ne mooy benn cheikh bi yëngal adduna waxuma Sénégal de biir réew mi bitim réew fépp foo dem ci adduna sëñ Béthio mooy ki yëngal jamono te Serigne Saliou doole gi doole gi Serigne Saliou kookee nag moo woote tey sant Serigne Saliou Mbacké woo ci ñëpp bàyyiwul kenn sëñ Béthio nee na bayiwul kenn ma nga ba di wajal dikkam fi ci bir rew mi waye neena na kenn neena mo ngi wo ñep mo ngi wo khalif general de mouride mo ngi wo wa keur Serigne Saliou Mbacké waaye mbooleem jabatu Serigne Touba gi mu ngi len di wo ci tiant gi nga xamanteni mu ngi koy sante Serigne Saliou waaye mbooleem keuru diine yi Serigne becc neena mu ngi len di wo ci sant gii muy sante Serigne Saliou bayiwul prêtre waaw ndax ay xéewalam day dem ba ca ñoom bàyyiwul kenn ñëpp la woo ci nak boobu nag la ñuy potoxlu ndax ay jaamam lañu jaam jaamaatam lañu ay ndongom lañu ay taalibeem lañu di ko ngir xam ni waa àdduna nañu ñëpp ni ko soxna Dia waxee xéewal mat yi gis waaye gilim yaa ngi ñëw te di ngeen dellu si di ngeen ci teg seen xar ngi ñëw ginaar ngi ñëw doom ngi ndox yu saf suukar yaa ngi fi dana nañ yaatal ñëpp ubbi nañu kër yi yaatal nañu ñëpp ku fas yéene ñëw ànd ak ñun santuk sëriñ Saliou gii sëñ Béthio woote ànd nañ kook yow bàyyiwuñu kenn lépp mat na matale na lépp defar na lépp te lépp doy na nee na ren daa mës daa fas yéene sant sëriñ saalu nu mu ko mës a santee loolu nag fireeku na loolu fireeku na kon ba tax na ñoo ngi koy ñaanal moom suñu sang bi suñu yaakaar adduna ak alaaxira ki ñu wóolu adduna alaaxira moom sëñ Béthio jaamu sëriñ Saliou moom mi ñu sagal moom mi ñu teral moom mi ñu dimbali moom mi tax hmm. waxu waxu universel soxna Batoor gi nee na sëñ Béthio ki tax li tax a tax moo tax lépp tax sëñ Béthio moo tax lépp tax bay tax tax yi nañu ko sant gaañ yi nañ sant Serigne Béthio ngor gi dama ne dama ne sëñ Béthio sëñ Béthio kenn defalu ko dara Serigne Saliou woo ko defal lépp kooku kooku day suñu njariñu àdduna ak àllaaxira kooku day suñu njariñu àdduna ak àllaaxira kooku day suñu ay waay gaañ yi ak 2018 waaye gaañ yi du benn fan du ñaari fan 73 ans mu ngi ko ànd ak Serigne Saliou sonnul tayyiwul gëmmantiwul dajjantiwul fañul mbooloo mi ku ñëw mu ubbil la ku ñëw mu yaatal la ku ñëw mu faj say aajo Serigne Saliou ko wax sëñ Béthio mënu ko mbakkee mënu ko jox naa la kun fayakun bu ku amati aajo bu dikkee ci yow bu la ko diisee na ko faj na ko de ko deel dogu ndax loo dogu ma fekk la ci dama ne kun nag yàllaa ko moom sëriñ Saliou li mu may bari na may na ko lépp waaye nag sëñ li sëriñ Saliou wax kun fayakun di fajuk aajo jàmm sëriñ Saliou teg ko ci loxoy sëñ Béthio mm. ne ko ku ñëw bu la diisee aajoom na nga ko faj waaye gaa ñi waaye gaa yi nañ leen sant sëriñ Béthio ñu defal cay li mu ñu defal dama ne mënuñoo def ba fay ko mënuñu ko mënuñoo wax ba fay ko mënuñu ko nañu xamné nar naar indi xorom si ñu sant ko sant gi nak mooy ngor gi and ak mom top ko té na ci limu bëgg té diko liggéeyal kon wax jaangi nonu noonu koy sant sama cantuk bopp